alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatixi alxaatimi sayidina muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 wa rahmatullahi wa di del si waat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci aj tey nekk ci suñu ñetteeli jotaay jotaay bi ñu koy jotaayoo ci njëriñ yu yi yàlla xadul aji xaj ji wala mu nar koo xadul aji xaj ji ku mu ci ñaari njëriñ yi le lii di njariñ yuñ ñu mën a teg loxo nga mën koo jariñoo fii bala ngaa dee yii di ay njariñ yooy teg loxo ëllëg ci àllaaxira maamoon yu ma la ca wax amoon yu ca des yama la ca waxoon bokkoon na ca yañ mën a teg loxo képp koo xam na yàlla may na la ngay aji dana la yóbboo nga am xam fa ñoo xamutoon dana la yóbboo nga nammante ko fa ak ñoo xamoon loola dana jur ak jëflante ñaata dem aji màkka ñëw tuddee ay tuddante ay doom ñaata ñooy ñoo xam ne seen embossement ña ngi ko jëlee foofa waxtaane ko fa ba ñëwee mu sotti ñaata aji màkka jëlee fa njëriñal sëy muy sa jëkkër ngay jabaram ñaataa ci ñëw nga far dugg ci seen néeg ba takk ca soxna mbaa ngi ñëw ñaan la jabar ñaata ca bàyyee koo jël seen alal di ca liggéeyante di ca di ca bokk di liggéey ñaataa ca bàyyeekoo nit ki jox la ndimbal demal nga liggéeyi man caa am lii man ma am ca lii ñaataa ca bàyyeekoo nga nekkoon ko amul tànk te am xalaatab liggéey nit ki jox la puus la nga takk tàkk yooyay njariñ kenn xamut ni mu toll ñaata milliard la ca Arabie Saoudite di ca bénéfice wu te ku defar Arabie Saoudite wala muy Màkka ak Madina ci waxin rek defal nga yonantu bi ku leen defal defal nga mbooleem doomu aadama yi bu ñu jëboo sa ñàkk nekk jullit su ko defee kon yooyu yëpp lenn la woon ca njariñ ya ma waxoon la tamit ne congrès bi gën a mag jullit ñi rekk am ko ñu ngi koy amee ci Makka ci place yu wuute yi ca Madina yi ca Makka yi ca Minan yi ca Musdalifa yi ca Arafa waxoon naa la ko xaj ku ne gan ak yàlla nga ku xam gan ci ñun teral ko ak loo nay nay yàlla nag nim lay teralee mooy jéggal say bàkkaar nim lay teralee mooy moom ci boppam tamit nangu say ñaan ci lépp loo xam ne ni ñaan nga ko ko ak yeneeni njariñ yi bokk na ci moom aj gi loo xam ne làmboo na ko waxoon naa la ko li ñuy tuddee musaawaat foofa lay lay feeñee dëgg nag nga gis ko am ak ñàkk bokk luñ sol bokk lu ñuy wax bokk luñ comporté ki ki seef ak ki mu seefu bokk luñ sol bokk lu ñuy wax ak nañ koy waxantee aja gën a gaaw ci dàq lu ñuy tuddee maanaam euh, maanaam ak gi ñuy wax li gën a gaaw ci dàq ko ci waaso euh, yooyu yëpp aja ci gaaw ku xoo ku weex ku ñuul ñëpp bokk di wër kaaba gu ñuul gi bokk di yëkkatee ndoor ci la bayka laahuma la bayka yooyu yëpp bokk di sànni ay xeer yooyu yëpp tamit maanaam ñu bokk bokk di fóon aw xeer ndax aj daal ay mbiram ma bi ci ne yàlla rek ko xam yàlla ma ci nekk xam ko moo tax léeg-léeg mu sant la ne la fóonal xeer nga fóon ko muy xajarul aswad nga dem a dem ba ci kanam mu ne la sànnil xeer nga sànni xeer muy jamratul ula aqaba ak wusta nga dem a dem ba ci kanam mu ne la sànneexal xeer nga for xeer fële ca Musdalifa juróom-ñaari di sànni xeer ya yeneen ñetti fan ya nag foo foree xeer ya di ñaar fukki ya baax na nga sànnee ko kon foon nga xeer sànni nga xeer sànnee nga xeer nga dem a dem moment boo xam ne dafa ne la bul ray rab rab woo ray da nga ko fay bul ray bodom bul ray bukki bul ray lëkk ba mooy juróom benn rab yi yonantu bi seete woon na nañ leen rey dinaa ci si nga dem a dem ba ci kanam mun na mun na rayal gàtt maa la waxoon bu rey waaye rayal gàtt nga jënd gëléem ñu loj wala nga jënd nag ñu rendi mbaa ñu loj wala nga jënd xar wala bëy ñu rendi ko te pourtant ba ngay commencé xarmal dugg ci xarmal ga la la waxoon ne la tere naa la bul rey benn gàtt nga dem a dem ba ne sama liggéey baa ngi pare mu ne la rayal gàtt kon xaj li ci ne daal ay xikam yu bare bëri la làmboo yii xam nañ ko yii xamuñu ko waaye yàlla rekk moo jagoo ñi di ko topp ci luñ xam ak luñ xamut bañ ko moy ci liñ xam ak liñ xamut waaye bokk na ca njariñ ya benn dërëm boo fere ci aj yàlla dana la ko fulal juróom ñaari téeméeri dërëm benn tërëm boo fere ci aj moo xam da koo defal nit ci mu xaj yi moo xam da koo def ñam ki xaj lekk ko moo xam dang nga caa jënd mal mu sol ko moo xam yow may xaj yaa ko ca fere nu mën a fere daal yaa ko fere wala nga fere luhu ko benn dërëm bu nekk juróom-ñaari téeméer dafa dugg ci buntab infaq ji alquran ne woon masalu lasina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabatin nambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu xabba kon loola lu rëy rëy la te nag wallaahu yudaa'ifu liman yasha su ko defee kon li waral loola lépp li aj làmboo ci coonooy tukki làmboo ko ci sori say ñoñ làmboo ko ci dog bànneexa bi yaram làmboo ko ci dog bànneex a bakkan ab miliyoneer buy dem di tëdd ci tànta di tëdd ci la di tëdd ci basan di làmbaayoo ko xodd booba tumuraanke gu rëy rëy la wan sa gannaaw say soxna ak say doom lim bu toll nii moo tax dal kenn du sayduna muhammad yonent bi la yàlla may mu dem a dem ba sant nit ñi góor ngi ne xoddu leen ñu xoddu waaye dama ne ko bëggoon a sant góor ngi ñu xoddu ku dul yonantu bi danga xam ne xoddu yombut ci góor waaye moo ñëw fekk xol yi fees tepp ci wé ci bokkaale yàlla ñetti téeméeri xërëm ak juróom-benn fukk lu teg ñii seen bakkan di seen xërëm ñii seen xalal di seen xërëm ñii seen njaboot di seen xërëm ñii seen jabar di seen xërëm mu jël xiram yépp màbb ko ne saxal leen kenn kese te ci sax muy yàlla bañ ko saxalee ne ko fii lañ mën a xem mënuñ cee dolli dara mu ne duma ma fi ak yéen dangeen ngeen julli nuy julli mu ne dangeen ngeen kabaar wax allahu akbar yëg ne dara màggatut li ngeen doon màggal ba tax ngeen màbb ko wax leen ne màggut yàlla rek a màgg wax leen ko ci seen làmmeñ seen xol enregistré ko bu ngeen ca bàyyee jàngaleen luy firnde ne moom màgg muy faatiha ak saar bu ngeen ca bàyyee toroxlu leen ba wane ne màggu leen ngeen rukkoo bu ngeen ca bàyyee ko ne leen ràpp ngeen sujjóot toroxlul seen yàlla ci seeni jë ba ngeen yëg na yàlla rek a màgg ñu def ko ne ko fii lañ mën a xem mëntuñ cee tegati dara mu ne seen toroxlu gi des na na ko seen biir yi yëg ngeen bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee seen bakkan bi yëg ko weeru lëm wala ñaar fukki fan ak juróom wala fanweer ñu ne ko def nañ ko foofu lañ mën a xem mënuñ cee tegati dara mu ne nag li ngeen am boole leen ko ngeen ànd ci ak ñi ko amut ndax muy tekki ne la ngeen jëlee ci koor gi dëgg la ñooñu mën caa fatt seen xiif mën caa fatt seen ab ngeen dimbale leen ci bu leen li leen dalati nga yëkkati sa alal bokk kook néew ju doole ne ko yonent fii lañ mën a xem mu ne tey ngeen xottu du ngeen cee xem da ngeen terax laayu da ngeen bàyyi seen baay ya ngeen doon màggal màggal kenn ki di labbayka laahuma labbayka da ngeen wër kaaba gi doonte doj rekk la da ngeen foon xajarul aswad doonte doj rekk la da ngeen baagante diggante safa ak marwa doonte doj la waaye doonte doj wooye ma wax bokkut ak yeneen doj yi da ngeen tumuraanke gi mi nan da ngeen dem arafa da ngeen ñëw musdalifa da ngeen ñëwaat mi nan da sànni da ngeen sànnee doj ci doj su ko defee ngeen ni sànni doj ci doj bi ngeen fa bàyyi ko jëm màkka def tawaaful ifaada waaye xoddu ni mu jafee moo tax léeg nga gis koo xam ne biiram ba ba mu xoddoo kenn xamut lu muy niru nga xam ne kii yonantu bi rek rek moo ko mën a sant xoddu mu xoddu waaye ku ko santoon xoddu ku dul xoddu ku dul yonantu bi dootul xoddati da gis koo xam ne sërëm ba dana tase nu ne mu takk ko fu ne waaye terewut ma ngi cay jéem lim man lépp rek ngir wëyal santaaneeb yàlla bi ca yonantu bi jottali ko ci wa ma ataakumu rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu kon benn dërëm boo ca fere yàlla fayee la ko loola ba ca tegu nag mu des waruwaay bi njariñal waruwaay ñii xaji ñetti xaaj lañ xam na ñuy war waruwaayu gaal wala oto ñu mel ni suñ mbokk égyptiens yi ca gaal ya waa Dubaay yeeg ña jege foofa ca oto ya am ci ñoo xam ne avion lañuy jël comme sénégalais yi bu njëkk ba am na ñoo xam ne gëléem lañ daan war bu fekkee da ngaa dox ñenn ñi dox ndax seen diggante ya soriwut jéego boo jéegu benn jéegu boo jéegu ñu bindal la ko juróom-ñaar téeméer ci yool li nga jéegu juróom-ñaar téeméer ci yool waruwaay boo mën a war avion la yaa ngi war gëléem yaa ngi war gaal yaa ngi war oto benn jéego bu mu jéegu mooy fi gaal gi nekk pe eh, kiyam bi geenu gaal gi bu fekk see bopp gaal gi booba jéego la tànki kanam yi tànki gannaaw bu fekk see tànki kanam yi ci oto bi jéego la demeet ci avion ba noona su ko defee booba loola nga war lu mu jéego jéego bu nekk juróom-ñaar fukk mu mel ni kon doxa xëpp yool fuuf juróom-ñaar téeméer la war a gën a néew yool juróom-ñaar fukk la waaye nag war a gën ndax yonent bi dafa waroon bu muy xaji moo tax ci ulamaawu usul dañuy wax ne dara dana gën dara ba pare dara jooja jaral bi ko xëpp ko yool xaj màkka dox moo xëpp yool fuuf xaj màkka war waaye nag aj màkka war moo ko xëpp yool moo tax euh, loola maam xalifa ngi koy jàngale way qaaidaab usuliya ba wa man yaqul anna salaata ak sëru ashiran min alqurani laa yukufaru id kasratul ujuri la tastalsimu lil afdaliyati kama qad yu'lamu mu ne ko dara dana gën dara ba pare dara jóge yàlla bi ko xëpp ko yool salaatul fatihi noonu la mel ci leneen lu ko gën de bëri na waaye lu ko gën tamit moom fekk moo la xëpp yool su comme ni xaj màkka war ak xaj màkka dox ak xadis ba yonent bi waxoon saaba ya ne leen jamono ngi ñëw jëf lu baax dana jafe ba kenn ke ñooñu ku ci jëf-jëf ju baax dañ ko fay payoorab ku jëf juróom fukki nit taxawaayu payoorab juróom fukki nit benn sahabi yu ne ko xanaa ca ñoom juróom fukk yee ca ñoom mu ne ko ci yéen ñii lu ko waral yéen ngi da ngeen a xam ndimbal maa ngi fi alquran a ngi fi su ngeen gagee ma gàgganti leen ku ci xam bàkkar ma ñaanal la yàlla jéggal la ñeen ak xamuñ lu leen dimbale moo tax ji jamono ku baax ba def benn bu baax sa benn bu baax ba dana taxaw taxawaayu jëfi juróom fukki saxaba ñoo la gën fuuf nag waaye yaa leen ëpp yool ndax benn saxaba bi gën a tuuti daraja ci waxin moo gën a foor xutbu samaan bi ëpp ju doole ci xutbu yi cheikh na tijaani laaj nañ ko ko xutbu boo xam ne yàlla may na ko lam ko may te duhut saxaba moom ak kudul moo ak saxaba bi nga xam ne du xutbu ku ci ëpp doole cheikh na tijaan ne xutbu baa ko xëpp may waaye saxaaba baa ko gën lu tax saxaaba bi gën ko mu ne yàlla wax ci alquran ne laa yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qaatala ulaayka azamu dara min alladina anfaqu min baadu wa qaatalu mu ne aay gi day wane ne ñi dugg ci lislaam jënd carte de membre njëkk fathu màkka di am ñoo xëpp doole ñoo xëpp payoor ñoo gën ñi dugg ci lislaam gannaaw fathu màkka kon lañ say déggee nag kon ña dugg nag gannaaw gannaaw fat fu màkk kay mënu ñoo xem ak ñële moo tax kon mu ne boobu aaya moo tegte ne saxabaa yonentu bi ñoo gën ñu dut ñoom donte saxabaa yonentu ba ñaari catégorie lañ ñi tuub njëkk fat fu màkka ak ñi tuub gannaaw fat fu màkka ku mu ci ñaar ñi ñoo gën ka ñëw gannaaw ga nag beneen bi tamit hadis la yonentoo ko wax inna allaha fadala ashaabi ala jamii alxalaaiqi siwal anbiyaai wal mursalina yàlla gënal na sama saxaba yi ci mboolee mbindeefi yàlla yi ñu dul maanaam yonantu ya rek di anbiyaa wa mursaluun rek saxaba yonantu yi ñoo la gën ñaari tegtal yi ñoo ko tegtalee Cheikh na Tidiane nag misaal ko nu mu gën a jegee ne mayab saxaba dafa mel ni naawu porentaan ku dul saxaba mayam mi ngi mel ni doxu melentaan melentaan ak porentaan nag mënuñoo xem dox xam nga ne lu porontaan bi naaw ci benn minute melentaan bi mën na koo dox téeméeri junne du ko matal kon ni la melentaan gën a gaaw yow prentaan bi noonu la saxaba ba gënee yow kudul saxaba maam xalifa way ko ne waqaalu inna sayrana bi nisbati li sayrihimu mislal qata wa namlati wax ju rafet loola ma nga ca juyusu tulaa'i bil murhafatil qutaa'i ilabni ma'yaba axi tanatu'i kon saxaba yaa ngoog ak seen a ngëneel kii xaj màkka war a ngóog ak ngëneelam kii xaj màkka dox timit ngëneelam a ngi ba taxoon ma génneel la ca loola euh, beneen ngëneel gi nag yonentu bi loolu ma wax la sànq addirhamu bi sabaati mi ati diaf bu bay xaq yu moo solo hadis bi mu bokk ci hadisi abi hurayra ba aba qasim nag moo wax ne man maa dégg yonentu bi ne man jaa ya umul baytal xaraama fa rakiba bairahu fa maa yarfaul bairu xuffan wala yad'u xuffan illa katabalaahu lahu biha xasana wa xatta anhu biha xatia wa rafaa lahu biha daraja xatta ida ntaha ila albayti fa taafa wa taafa bayna alsafa walmarwa saa baynahuma suma xalaqa aw qasara illa xaraja min dunubihi ka yowmin waladathu ummuhu lii yonentu bee ko wax aba qasim mu ne maa ko dégg yonentu bi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ku war a gëléem wala war waay bu mën a doon mu yëkkati tànkam teg rek yàlla bind na la ca xiiw effacé na la ca bàkkaar dana ci yëkkati sa daraja ba ba ngay yeggee ca Kaaba ga nga wër ba nga paree nga dox sa Safa mar wa ba ba ngay watoo ba ba ngay duufeewoo su ko defee nag bu yooyu yëpp paree nag sa bàkkaar yëpp set wecc ci yow ba mel ni keroog ba nga juddoo ni nga ñàkkee bàkkaar Ibnu Omar ne maa mos toog ci yonantu bi ca masjidu Munaa benn góor gu bokk ci ansaar ñëwal ko ak geneen góor gu bokk ci ba bani saqiif ñoom ñaar ñëpp ngi ñëw nuyu ko wax ne ko yow yonantu bi dañoo ñëw ngir laaj si la yonantu bi yàlla da koo xamal baatin ni mu ko xamalee saahir ne leen bu leen neexee ma wax leen li ngeen bëgg a laaj bu leen neexee ma bàyyi leen ngeen laaj ko ba pare ma tontu leen mu wax kenn ka ne ko léegi waxal ka nekk ne ko yow yonantu bi solo ma su ma ñëwee nii damaa ñëw di la laaj su ma génnee sama kër jëm ci si néebu màgg bi di masjidul haram te dara taxul ma ñëw lu dul euh, euh, maanaam xaj rek ma bàyyee koo ca julli ñaar rakkaa ca maqaamu Ibrahima gannaaw tawaaf ba ma ca bàyyee koo ma dox safa ak marwa waaw ba ma ca bàyyee koo ma taxaw ngoon ca arafa ba ma ca bàyyee koo ma sànni jamra ba ma ca bàyyee koo ma loj sama hadiyu ba ma ca bàyyee ko ma def tawaaful ifaada dama lay laaj lii ma def lépp lu ma ca yàllay defal lii de laa lay laaj yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bi nga génnee sa néeg rek jublu néegam yàlla ba sa gëlëm gi du séq benn jéego lu dul ba yàlla yëkkatil na ci daraja eh, defal la ci xasana effacé la ci say ñaaw téef ba nga jullee ci maqaamu Ibrahima ñaari rakkaa rek am nga yoolab ku goreel jaam ku bokk ci bani Ismaila ndaw ndaw ndaw yool bu réy ba nga taxawee sa ngoon nga ca Arafa rek maanaam yàlla. ma nga sippeekoo yërmandeem ba ci asamaan si tiim ñu di la puukareewu ak malaakaam yi ne sama jaam yaa ngi nii ñëwal nañ ma ñu nga cugg bàyyee ko ci pépp place bu wuutee yaakaaruñ lu dul sama aljana maa ngi leen xamal ne seen bàkkaar yi buñ bëree woon ba mel ni peppu beeñ bi wala mu bëri ba mel ni toqi taw bi wala mu bëri ba mel ni duusu géej yi man yàlla jéggal naa leen lépp kon nag yéen sama jaam yi dem leen ngeen nekk ñoo xam ne jéggal naa leen ba nga sànnee sa jamra yi benn xeer boo sànni ci jamra ya su boobaa dafay nekk kafaara ci bàkkaar bu mag ci bàkkaar yi xalake te yooyu waxoon naa ko di juróom-ñaari bàkkaar yonent bi ne woon ijtanibu sab'al mubiqaat ashirka billaahi wa sihra wa qatla nafsin allati harama laa ilaa bil haqq ba hadis ba jeex juróom-ñaari bàkkaar yooya ak yu mel ni ñoom benn pep benn jamra boo sànni dana la faral benn ca bàkkaar yooya noona te jamra yi ngay sànni yëpp boo ko seetee kun lay tolloog juróom-ñaar fukk boo matalee moo tax matal baax na kun baax na trop di xam nga bisu euh, tabaski bi yaa sànni woon juróom-ñaari jamra yoo foree woon ca suufu Musdalifa waaye tamit yeneen ñetti fan ya bët bu set nga sànni ñaar fukki jamra ak benn 3 fois 21 63 la lay jox nga plus ki set ya nga njëkkoon a sànni ca bisab tabaski ba mu jox la 70 kon saa yoo matalee 70 jamra lay doon su ko defee kon nag matal moo tax baax na lool de. fa man fi taajala fii yawmayni falaa isma alayhi waaye wa man taaxara taaxur baax na de moo gën jul de bu ngànta amut bu ngànta amee nag aysaruhuma afdalu la gën a jàppande ci yow rek moo gën ci yow su ko defee kon nag yonent bi wax ko loola ah mu ne ko nag amaa nag léegi loj sa hadiyu mi kooku moom nga ne la du la ko wax yàlla dafa la koy dencal ba yowmal qiyaam fa madkurun laka inda rabbika da la koy dëxëñal ba yowmal qiyaam mu ne ko wat sa bopp bi nag amul benn kawar booy wat ki sa bopp bi lu dul ba xasana lay doon aw xiw yàlla faral la ca ñaawteef ci bàkkaar wër gi nga wër kaaba gi ba nga koy wër maanaam fa innaka tatuufu wala zanba laka ba ngay wër kaaba gi rek amatoo benn bàkkaar malaaka tamit day ñëw ba tëral sa pegg tëral ay ñaari loxoom ci say mbagg doo ko gis nag mu ne la jëfal maanaam ci li nekk ci sa kanam yàlla jéggal na la li paase lépp jëfal li nga dese ci sa kanam yàlla jéggal na la li paase lépp kon aja ngoog ak yenn njariñ yi nga xam ne aj làmboo ko ma waxoon la ko démb wax la ci tey xam naa du ñàkk ñu bari ci ñu may déglu ne ah su fekkee mbind mi tëjagut de man danaa aji ndax ngëneel yii du bëgg mu faat ma man de su fekkee tëjagul mbind mi danaa bu ma xëyee suba danaa bindu ji su ma ko mënul danaa ñaani paas su ma ko mënul ku ma yaakaar dana ma dimbale ma dem rek danaa ko def dëgg la jar na ko nag waaye kay xaj nag ngëneelam li muy rëy ak li muy for nag warul ñëpp am na ci ñoo xam ne nii xaj warul leen wérul leen am ci ñoo xamee ne nii aj gi wér na leen waaye warul leen soo ma dégloo nag danaa la farañ fànceel ñi nga xam ne xaj warul leen wérul leen door laa farañ nga xam ne xaj wér na leen waaye wérul leen ki ci njëkk nga xam ne xaj waru ko wéru mooy ab xéeféer ku du jullit boo xajee makka xajji warul la soo xajee makka kenn du la ci bindal ab yool doonte boo demee ci maraqi saud dafay wax ne xéeféer yi togg nañ leen furuu ya nga de ci usul usuli yu yi loolu lañuy jàng li leen ko togg a tax yàlla ne fa waylu li fa waylu li musrikiina laa yutuuna zakaata musrikuuna yi xurum bugal na seen kaw ndax dañ ma joxe wut asaka mu mel ni kon bu ñu leen ca toggutoon ñu leen ko mbugal ah kay bu ñu leen ko toggee tamit nag du mën a wér bu ñu ko defee lu dul dañoo màbbu baaraasab weddi yàlla euh, fexe ba samp baaraasab wéetal yàlla nangu yonantoog yonantu yi su boobaa nag léegi baaraas boobu mooy taxaw taxawaayu pas-pas ba lu ñu mën a ñawati rek pas-pas ba man koo téye kon daal ab xéeféer xaj màkka waru ko ab xéeféer aj màkka wéru ko lu ko waral aj dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne dafay tënkuwu di fasowu ci héene soo héenewut doo ko mën a def te jaamu yàlla yu bari dafay ànd ak héene tawatina jaamu yàlla ak def jaamu yàlla ak bàyyi rek moo xamut héene fóot yére yu am sobe jarut héene demeet yu mel noona waaye jaamu yàlla ak def faw nga héene moo tax nag ab xéeféer nag ak héene mënta wér ndax ku sa xol wérut mënoo héene héene gu wér te héene dafa baax alquran wax na ko wa maa umiru illa li yacbudullaha muxlisina lahu diina xunafaa wa yuqimu salaata wa yutu zakata wa dalika diinul qayima yàlla nee na diggaluma leen ñoom lu dul ñu jaamu yàlla te sellal ko ixlaas ñëw ak yéene foofa ixlaas balaa mën a xam yéene moo koy jiitu nga yéene sellal nga sellal doona mën a ñëw su ko defee tamit nag ñi ñi ñi taxawal diina ju jub ji jéng walis dul moom waaye tamit bàyyi taxawal nangoo taxawal julli joxe asaka loola mooy diina yu jub ji su ko defee kon nag dañoo sartaal ci aj màkka ak jaamu yàlla yu mel ni ñoom gëm yàlla ànd ak jëf ya ca yéene te loola xéeféer mënu ko moo tax alquran a ngi wax ne man amila saalihan min shakar min zakarin aw unsa wa huwa muminun fa la nuxiyannahu xayaatan tayiban wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yamaluun képp ku jëf-jëf ju baax di góor wala muy jigéen tabam koy def gëm yàlla lal na ko rek man yàlla danaa ko dundal dund gu teey mooy aljanna ëllëg danaa ko fay danaa leen fay seen payoor nam gën a matee kon yëgee nga ci ñaar ci ñaari aay yi aay yu njëkk gi déggee nga ci ne jëf balaa mën a wér day xam yéene xéefir mën te yéene ñaareel bi mën nga cee war ne jëf bala ko yàllaa fay muy góor muy jigéen gëm yàlla da koy lal xéefir bi ne comme gëmut yàlla moo tax xaj waru ko moo tax tamit xaj waru ko wéru ko Eh, ñetteel bi yonent wax ci hadis ne innamal amalu bi niyaati wa innama li kulli mri'in ma nawa jëf yëpp mi ngi lalu di lay taayaloo ci héene nit ku nekk la nga héene ci sa jëf rek moom ngay mën a xam ñaareel bi tamit mooy xel ku xamul xel di dof xaj màkka waru ko xaj màkka tamit wérut ko kooku yonentoo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ne rufi al qalamu an wa naim xataa yastayqasa wa sabiyu xataa xa mu ne yëkkati nañ xalim ak dogal gi ci ñett ku dof fekk ba muy xiiqee kuy nelaw fekk ba muy xeewoo ab xale fekk ba muy mësooree ñetteel bi tamit mooy mësoor koo xam ne danga ngaa mësoor a gut nekk xale wala nga nekk kuñ moom di ab jaam aj màkka wërul la waaye en wér na la soo ko defee dañ ci bindal yool ba bindalaale ca kala yar sa waajur ya ca yool ba waaye nag boo demee ba mësoor xaj màkk ak lislaam gi wàcce gud la war ngaa dem nga xaji sa aj gële naafila dong lañ koy jàppee bu doon tamit ab jaam ca jamono dañ koy wax yàlla dogal ba muy xaj yi goreegu gannaaw si ga mu goreewu su boobaa tamit xajam nga dana ca am yool waaye xaj màkk ak lislaam nga wàcce gud ko na dem maanaam mu xaji moo tax Ibnu Abbas wax ne yonantu bi nee na képp koo xamee na nii dangaa yoreb xale yàlla dogal mu xaj gannaaw mu mësoor su boobaa war na mu xaj xajak mu xam mu war wa mu xaj ganeen xaj goo xam ne mooy tax xajak lislaam nga mën a ñëw ayuma sabiyin xajja summa balagal xanas fa alayhi an yaxujja xujjatan oxra wa ayuma abdin xajja suma utiqa fa alayhi an yaxujja xujjatan uxra tabaraaniyu mu indi xadis boobu moo ko génnee su ko defee kon nag ñeenteel ba mooy ak ngore ku gorewut nekk di jaam xaj warut ko waaye wér na ko moo xam jaam ba mu kaatab la moo xam xinnu la moo xam mutaq ilal ajalla yeneen ya ca xaju yooyu yëpp xaj màkka warul leen waaye wér na leen su ñu ajee danañ leen ca bindal ab yool waaye buñ goree bëgg nañ ñi dem xaji xaj ak lislaam nga ndax wàccagul leen juróomeel bi nag mooy dugg waxtu xaj loo mën a mën a xaj te bëgg a xaj te waxtu wa jotagut te mooy wor yi ak diggeek tabaski ñu ne fukki fan ci tabaski ñun tabaski lépp a weer yooyu lañ mën a xaj waaye weer yooyu bu ñëwagut wala bu paasee dootoo mën a xajati alxajju ashurun maalumaat beneen bi ci tegu tamit nag mooy dëggal ak xattan na fekk nga man ko istitaatu nag boroom xam-xam yi bari nañ nuñ ko wuutee nuñ ko firee waaye daal istitaatu bi ci njëkk la nga xam ak wér gu mat sëkk moo tax bala ngaa dem màkk réew mu ne lañuy ñuy njëkk a def sa sante lañuy xool seet ndax apt nga wala apt huloo ñaareel bi na nga am alal ju mat sëkk ju la mën a yóbbu am na ñu ci dogal tamit ak dellusi gi mën a dem mën a ñëw wala ñëw ba place boo xam ne boo fa ñëwee du toqat a sànkooti li ko Cheikh Khalil waxee am nga dundam ba waaye amaale nga dundal njaboot bi ngay bàyyi gannaaw sa njaboot gi boo leen naree bàyyi gannaaw duñ lekk ba nara a lu dootoo mën a demati waaye boo leen bàyyi woon dootoo la ñuy yalwaan sax di dund te bu ñu yalwaan la ñuy sarax leen dara néew ci istitaatu ba tey ngi ci yow yow mi donte sa istitaatu gannaaw bi nga amee kartan da ngay yalwaan di saraxu ba xegg màkk tamit ba tey maanaam mustati nga attan nga ba tey loolu la xalil wax ba tey maanaam ñetteel bi mooy nga am lu la mën a yenu yóbbu la ci jéeri ji mbaa ci géej gi su fekkee yoon wa woowa ngay awee ci waruwaay muy raaxilatu ñu ne suñu raaxila léegi mooy avion am ñoo xam ne seen raaxila gaal la ñenn ñi ay oto la ñenn ñi seen tànk la la mën a am ànd ak loolu tamit nga hóolu yoon wa ci agress agression bi bañ duñ nangu saxalal wala buñ nangoo saxalal tamit duñ nangu saxalal nangu goo xam ne dafa lay yàq dafa lay fomm moom la alquran ni ndax def yooyu yëpp nga bàyyi fi danse yi dem aji fekk amuloo santé nga dem aji amuloo xalal ju la a dundal man laa yóbbu andi la nga dem aji yoon wi amul sécurité nga dem aji mënoo dox te amoo warwaay su boobaa xaru la te alquran ne ne wala tulqu bi aydikum ila tahlukati beneen aaya bu mu ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiman kon yii lañ koy tuddee nag dégg nga euh, euh, su ko defee kon yii yëpp mooy istitaahatu mooy dajee ci yow na apte ci sa sante na nga am paas ak dewis ci mën a dem ak ñëw wala ñëw foo xam ne dootoo ragal ci sànku na nga am loo dundee na nga am loo bàyyee sa gannaaw sa njaboot luñ mën a dundee na nga am tamit euh, set yoon wa ba doo ragal sa alal ku ko nangu nangu gu lay fomm doo ragal sa alal kuy faat bakkan yi yëpp nag bu dajee ci yow istitaatu am na ci yow ji alquran doon wax ne walillaahi ala naasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabilan loolu mooy istitaatu boo ko tënkee noonu tamit la ko imaamu Malik maanaam waxee kon yii ma wax bu dajee ci yow rek war ngaa xaji bu yàlla dogalee daal yow mi may déglu jullit nga yow mi may déglu am nga xel yow mi may déglu mësoor nga yow mi may déglu gore nga yow mi may déglu àttan nga ci ñeent yi ma ma tënkale la ko ci sa sa sante man na ko ki sa alal matee na ko ci li ngay bàyyi gannaaw ak la yóbbu sécurité gi tamit làmboo na ko su ko defee tamit waruwaay ba wala dox ba man na ko yëpp bu amee istitaatu am na ci yow war ngaa xaji aj jàpp na la bu dajee ci yow nag ñoom ñëpp ndax nga war a dem ca saasa wala bu la neexee xaar ba ci kanam ngay door a dem kooku moo am maanaam werante fa am ñu gëm ne ñoo xam ne dañoo wax ne rek istitaatu bu xasee xam ci yow rek daal euh, ca saasa rek gaawal nga dem aji ndax man-man day rëcce sa man-manu yaram dafa laa dafa laa gane si bis day ñëw rek mu tàggu la kon nag nga gaaw yow tamit tàggoo màkka bala laa sa santé tàggu ñaareel bi am am bi indi paas bi gan la gula gula gula gane si buy dem tamit du la tàggu dana dana jox nag ay signe ba nga xam ne mi ngi bëgg a dem su boobaa tamit nga gaaw tàggoo makka bala laa sa am-am bi tàggu bu sécurité amee ca yoon wa tamit tabaarakallaahu nga gaaw aji màkka bala laa sécurité baa tamit tàggu yooyu yëpp ci fawriyatu gi daal ci la boroom xam-xam yi werante ñu jàpp ne fawriyatu gi boo xamee ca saasa rek gaawal nga gaaw aji bala laa fawriyatu gee tàggu ñooña ñaari xaaj lañ am na ñu ne daal su fekkee ne ñëw na ci yow rek ajil yaa xam bu la neexee tamit euh, nga toog ba ca kanam ak kanam kanam nga door a dem yooyu yëpp ñu ne dara néew ci ñu ko wax yépp nag kenn ku ci nekk dafa am tegtal yoo tegtaloo te tegtal yi nga xam ne moom nga tegtaloo tamit dafa nekk di source yoo xam ne yu dëgër a dëgër la moo tax boo demee ci Cheikh Khalil da ngay dégg mu ne wa fii fawriyatihi wa taraaxihi li xawtil li xaw xawfil fawaati xilaafun mu ne maanaam gaawe gi gannaaw bi yëpp dajee ci yow nga gaawee dem defi ko wala nga yéex a yéex a yéex ba ragal ne mi ngi may bëgg a rëcc nga door di ko dem defi loola daal ñii ne dafa war ñii ne warut làmb jutta ndax kenn ku ne ci ñoom andi nga ko tegtal yu dëgër ñi wax ne dañ koo war a gaawee indi nañ ay xadiis xadiis ba bokkoon na ci xadis bi ibnu abbas wax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ibnu abbas a ko déggee ci yonentu bi ne yonentu wax ne taajjalu ilal xajji fa inna ahadukum laa yadri maa yaaridu lahu imaam ahmad moo génnee xadiis bi mu ne istitaatu bu amee ci yéen rek gaaw leen ngeen dem aji ndax kat kenn ci yéen xamul la koy gaar lu la mën a gaar sa yaram mën naa am la mën a gaar ci sa am am mën naa am beneen xadis mu ne wa man araada al xajja fal fa innahu qad yamradu al maridu wa tadillu rahilatu wa taaridu al xaajatu imaam ahmad ba tey moo ñuy xadis ak ibnu maajaha dégg nga de mu ne ku bëgg a xaji ci yéen istitaatu am na ci yéen am na ci moom na gaaw mën naa feebar te loolu dana ko xeñ waruwaayam mën naa sànku réer wala mu ñàkk ko te kon dana ko ko xeñ soxla ak ay haajo mën na ko tënk ba tax na dootul mën a demati loolu dana ko ko loolu dana ko xeñ su ko defee tamit kon ñaari hadis yi ñoom lañ tegtaloo euh, waaye tamit tegtaloo nañ tamit ci alquran ci aaya bi alquran wax ne walillahi ala nnaasi hajjul bayti man istataa man istataa ñu ne la wax istitaatu am na kon ñu ne demal mu jeex dégg nga euh, nga loolu lañ wax waaye ñi wax ne nag su istitaatu amee ci yow man ngaa xaar bam neex la nga dem bala nga koo ñàkk saa yu la neexee rek ñoo nga tamit xam nañ tegtal dañ ne aj ñu ngi ko farataal ci yonantu bee xeetam wi juróom benni at ci gàddaay gi ñi ne juróomi at te xoolal fi ñu ko farataalee juróomi at mbaa juróom benni at te yonantu baa ngi gàddaay yi ga yonantu baa ngi aji ci juróom-ñeenti xatam xam nga yonantu bi mënoon na ko ci santé man na ko tamit ci moyen ci matière waaye toog na ba juróom-ñeenti at ya muy door di dem su ko defee kon nag moo tax ma ne làmb jutta la ñii dañoo indi addilatu sunnati al qawliyati ñii indi al addilatu al fi'liya bi sunnati ñii dañoo indi tegtalu wax ndax xadis yi ma wax la qawliya la waaye tamit lee ma wax la fi'liya la mooy lii doon bi pratiquer moom bañ farataalee ci moom donte man na toog na ba juróom-ñeenteel ba mu door di dem nga xam ne fi mu ajeeg bi mu ñibsee fi mu génnee àdduna lu néew a néew la ñenn nga ne déeréet yéexe gi rek la ñaari hadis yi di tegtale man araada man araada al xajja fal yataajjal amar ji duwul amari wu jóob istihbaab la maanaam sopp nañ ko rek sopp nañ nga gaawee ko foofu lamar gi dañ koo sopp rek la wax tamit taxajjaloo ilal xajji amar jooju amaru cofeel la waaye duhut amari war su boobaa nag boo ko jàppee noona ba tey kon dugut lu war rek gaawe gi ñaareel bi tamit ñu ne wax ji jenn rek la mooy xat miñ farataal aj ci yonantu bi dañ cee wuutee ulamaawu siira dañ cee wuutee am na ñu wax ne juróomi at ñi ne juróom benn am na ñu ne juróom-ñetti at la juróom-ñetti at ca gàddaay ga la su fekkee juróom-ñetti at ca gàddaay ga la yonantu bi yéexewut ko di dañ koo farataal dañ ca déwén ca mu dem su boobaa kon nag wax jooju moom nga koy mën a dëppalee ba xam ne duwut tanaaqub ci sharia waaye wuutee déggin la yoo xam ne boo ko màccee nga ràccaat ko mën nga leen a boole muy benn déggin moo tax kon fawriyatu gi ak taraaqi gi noonu la ci boroom xam-xam yi wax ci wàllu maanaam aj gi kon nag wax naa la ajag ñi mu war te wér leen wax naa la aj ak ñi mu ñi mu ñi mu wér te fekk maanaam tamit warul leen su ko defee nag xam naa ne euh, la ma lay tënkal rek nag mottale ko waxtaan wi mooy yow mi aji dafa ajoo bala ngaa dem nga wut yóbbal yóbbal bala ngaa dem yóbbal bi gën nga tàggat yóbbalu bakkan boo ca bàyyee ko nga am yóbbalu xol boo ca bàyyee ko nga am yóbbalu xam-xam boo ca bàyyee ko nga am yóbbalu alal yii dafa war a am yooy war a mën a yóbbaloo ndax sa aj gi yomb war ngaa yóbbaloo sa bakkan bi yaa ngi aji tàggatal sa bakkan bi ba bul yóbbuwaale alal ju bon bul jël alal ju xaraam nga di ko xajee bul nangu tamit nit ki tappale wala mu sàcc wala mu jëlee xalal ci lu xaraam di la ci ajali nga ne nga xam ko tey dem soo ko xamut nag nga dem aj sa dara nekkut ca yow moom xam nga ca yool rek moom mu gàddu bàkkaar ba kon na nga xeex ak sa bakkan ba alal ji ngay yóbbu màkka na lew waaye bul aji màkka tamit di la baykawu ci xalal ju lew ba pare bàyyi fi sa gannaaw lëndëm yaa ngi fi bàyyi ay dénkaane yu ñu tegoon ci sa xalal sa ndodd yaa ngi fi bàyyi woon ay bor yoo war a fay yaa ngi fi bàyyi woon ay xaq yoo waroon a delloo kon bala ngaa dem tàggooxal ñoo ameloon aq nga baalu leen àq ñi nga xam ne da leen amee loon alal ci bor nga fay leen say ndénkaane nga delloo ko yaa ngi dem xamoo da nga ñëwam déet lii lépp nag nga tàggatee ko sa bakkan bi waaye nga tàggat sa bakkan bi tamit ci man a muñ ci xenu lor te muñ ba doo lor kenn nga yëg ne àdduna dong laay dajeek am na ñoo xam ne maa ngi dajeek ñoom bokkuñu waasoo bokkuñu raaso ñii déggantewuñ ci làng ñi bokku ak ñoom ay couleur suñ xol yi dong ñooy communiqué nga fexe ba sa xol sa sa rooxu gi di communiquer ak ñoom ba luñ la teg ci lor nga muñ ko te nga fexe ba bul lor kenn waaye dama doon wër kaaba gi ba ma nar ba conco ba ma ko kurfañee loola baaxut foofa benn kurfañ junne kurfañ lay remplacer ci yeneen i place ndax kat fu yàlla xormaal boo fa mooyee yàlla genn mooy yàlla ga dañ koy ful bàkkaar yu baree bari maa wax junne rek waaye mën naa ma sax téeméer junne su ko defee kon nag yooyu yëpp dafa jara daw loolu nag bakkan bu tàggatu moo ca mën a dem nga tàggat sa rooxu gi mu ànd ak sa xel mi nga setal ko ci mbooleem jikko yu bon yi setal ko ci bàkkaar yi setal ko ci ah, toppaanga yi setal ko ci xaq yi setal ko ci li nga miinoon fii ci Sénégal xam jot lool te mën a wax lool xam nga dafa jara ñaar dañoo jara ragal ki xam jot te mën a wax këy rek toog bañ tegee boolu añ ba jigéen ñaa ngi ko tiim commencé tiim añ bay tibbu di lekk boole ko di jëw bañ ca bàyyee ko lekk nañ ba pare war a dessert seen dessert ba mooy jëw ñi reerati noona nekk ci gara placé ca bàyyi buntu kër ya ñi nekk ca ron pegg jumaa ya ñi nekk ca ron garabu akaasiya ya yàq dera doomu aadama yi rek ak wax seen sikk te ña koy wax ñoo gën a sikk ñëpp te ñaari bët lañ am te yëguñ ne nit ñi ñi ngi xamee ay bët su ko defee yooyu yëpp bu ci sa ruuxu gi sellut tabaarakallaahu sa sa xel mi sellut ci nga bëgg a jël takk booba du ko laale ko màkka da nga tilimal màkka te màkka danga ko salteel te màkka saltewul fexeel ba booy takk sa bagage yi bu ci takkaalee yooya nga am tamit discipline gu mat sëkk fu ñu ne ran nga ran bul yàkkamti bul sote ca ascenseur ya ca Kaaba ga ca Muna ca Arafa bañ a nekk buux buuxloo bañ a nekk xuloo bañ a nekk saagaxante bañ a waxante wax yu bon nan ko miinee woon ci Sénégal ca njaar car rapide ya njaga njaaya ca tataaya yemale ko fii waaye loolu bu ko takkaale mu bokk sa yóbbal bi nga war a yóbbu màkka yooyu yëpp nga fexe bu mu dem màkka kon loola ay yóbbal la waaye nga fexe ba yóbbaloo xam-xam yow mi bëgg a xaji di ma dégg mboolem ci làng yi ñuy làng ci réew mi bind nañ ci ay liifur yuy jàngale ni ñuy xaje nga dem ci benn borom xam-xam ilimaan ja yow mi may déglu bul gàttañ lu de demal ci ilimaan ju la jege borom xam-xam boo naw ne ko damaa war a xaj ren damaa bëgg nga jàngal mi ni ko suñ mbokk iraakee di defee ki war a aji déwén ren lañ leen di tàggat defal leen lu mel ni kaaba tàggat leen ci atu lëmm ñi di ko pratiquer ba man ko mokkal ko door a xaji déwén waaye ñun da ngay toog ñu ne la kaay nga dem xaj yi sa doom di la yóbbu wala sa baay di la yóbbu wala nangam ak nangam te yow ma sax mën a góor la bayka xam nga loolu musiba la demal nga jàngi ko rek ña ko man ñëpp dañ koo jàngi nga dem mu bind la nu ñuy la bayka woo wax la nu ñuy sangoo sangum xarmal moog sangum jana ba sore wuñu nga wax la tamit boo paree boo julli ñaar rakkaay armal bi fatiha qul yal kafirun bi fatiha al ikhlas ci ñëw nga tàmbal ci sa xol ban aj nga bëgg aj aj ñetti façon la comme maanaam tamatoox laay defam xiraanam ifraat yëpp danaa ci ñëw benn bu ne nga bàyyi ci xel ban laay aj su ma demee nag ba yegg kaaba ga fu ñu war a tàmbalee wër gi waaye ñëw ñëpp yi wër rek commencé wër xam nga fu ñu war a tàmbalee sa da nga wër ba dee tab bi doo xam benn wër dafa am commencement comme ni julli amee kabaaru xarmal julli nga commencé ca am na benn lampe bu verte ñu rëdd benn rëdd ci suuf foofa booy tàmbali foofu ngay tàmbali soo demee ba yegg si waat foofa am nga benn nga yegg si fa am ñaar yegg si fa am ñett ba muy juróom-ñaar fekk yaa ngi wan kaaba gi càmm càmmooy nga koy wëree xol càmmooy la xëppee loolu lépp nga xam ko bu ñuy dox safa ak marwa fu ñuy tàmbalee am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne aller retour mooy benn yoon fekk aller bi rek yoonu boppam la retour bi yoonu boppam la ba mu mat juróom-ñaari yoon taxawaay nekk ñeenti yoon nga xam ko xam gu wéra a wér wér a bala nga caa dugg ca wàllu woowa su ko defee yooyu dafa nekk lu ñu war a xam bu baax a baax a baax nu ñuy sànnee jamra nu ñuy defee yeneen ya des yëpp nga dem ci ko ku jàngal nga enregistré ko ci sa portable bi wala nga bind ko téye ko nii xool ko la nga xam nag soo ko booleeg ñi lay guider nekk maanaam ñi lay encadré soo leen boole rek da nga mën a dimbali waaye dem di aji ta xamoo dara dara dara ci aj ñëpp ngay def maa ngi def rek xàmmeewoo ponk ya xàmmeewoo waajibaat ya xàmmeewoo sunan ya su boobaa tamit dëgg-dëgg ko xamut tey def ñaar a koy xaar dugal ca lu ca bokkut mbaa génn ca lu ca bokk te loolu lépp dafay yàq sa aj gi te nag sonn jël xaalis bu bëri dem yóbbu ko war a aji def weer ci àll bi bu nga dëgg la la taxoon a jug war ngaa fexe ba nga man koo am te loolu nem na yaa koy may sa bopp rek ci ni ngay toxalee ak ci ni ngay doxalee kon yóbbulu xam-xam mënta ñàkk yóbbulu kartan boo ko mënee di aji daal def ko gis a digg kartan wala nga am kartan goo xam ne doo doo gaaw sonn te yu ci bëree bëri da mën a taxawee waaye tamit yóbbul yóbbul bu doy eh, nga am xaalis ami réal yu doya doya doy takk ko bu baax nag yaa yow mi may déglu maa ngi lay xamal ne naar yi ñu tabaarakallaahu fii ngay xéem ñiy agressé di xéem sàcc yi boo demee foofa naar yi ñoo dàq dàq ñoo dàq sàcc suñ sàcc yi suñ ñe dàq sàcc suñ sàcc yi foofa lenn ca naar yi ñoo leen dàq sàcc soo amul sens ñawlul fii benn kamara gu dëgër nga dugal ci sa xaalis bi takk ko ci sa ndiggali direct doo la jël doo la jël armal gi ngay woddoo takk ko ci kawam su boobaa yàlla mën na laa dimbale te xaalis bi nga xam ko booy dem di wecceeku ànd la ku ragal yàlla looy jënd mën a la lii la waaye boo fa demee yaa ngay jënd am na loo xam ne sax téeméer lay jar nga joxe kayit gu mag gi mu nekk ti ñaari junne ñu nax la ca sa xaalis gaaw a jeex te ñu ci bëri tamit naan xanaa màkk lañ ragal nañ yàlla ñoo ñu ne am ñu ci bari tamit ñun sax ñoon ci bëri ñoo leen tene ndax la waaja waxoon makka lañ ñu royloo waaye royloo hu ñu waa màkka bëri na ñu nekk màkka ñoo xam ne ngi nekk fii ñoo leen gën téeméeri junne yoon moo tax boo fi nekkee naan màkka laay lu màkka def ma def ko ñun royloo hu ñu waa màkka màkka dong lañ ñu royloo ca julli ca kaaba ga di julli di ko jublu ak yeneen ya ca waaye royloo hu màkka tax la waaja ne woon ku roy ci màkka ñu roy ci maska aalim la woon xamoon na tomba ak maska ku fi dem roy ci waa màkka ñun ñu roy ci sëriñ Tuubaa roy ci maam Alaaji Abdoulaye Niass roy ci maam Alaaji Malick roy ci maam maska mi sëriñ Aliou Sakho ne woon ku roy ci makka ñu roy ci maska alim la woon xamoon na tomba ak maska kon foofa sàcc yi bëri nañ fa takkal sa nafa gi ba mu dëgër ñawlu waale ko ci perkaal bu dëgër defal ko fermeture takk ko ci sa ndigili jël armal ga takk ko ci sa kaw àndal ak ña nga bokk ak néeg ñi nekk ñu ragal yàlla sooy dem di wecceeku ji wala ngay dem di jëndi nga ànd ak ñoom ba kenn du la nax waaye boo demee yow sa bopp naan nangam nga génne xaalis mu la déedéet bii la nga génne bi mu ne la bii la mi ngi mel ni kuy jënd fii dàll carax téeméer nga dem nga génne kayitu ñaari junni mu ne la bii la nga ñàkk sa xaalis sa xaalis gaaw a jeex te gaaw yi dañuy wax ne ku say réyal jeex say ree jeex kon boo bañee sa ree ya jeex nag bu sa réyal yaa gaaw a jeex te palaatu añ yaag yu reer yaag ndékki la seer na fa lool bu sa xaalis gaawee jeex rek da nga am problème yooya yëpp nga yóbbaloo ko ci xam-xam bokk na ci xam xaalis bi xam-xam bokk na ci xam li ngay def ak nuñ koy defee fu ñu koy defee waaye tamit euh, xam-xam bokk na ci na ngay na nga mën a def ba denc sa xaalis ci muus goo xam ne kenn du la nax baax na ci la ma cay yokku tamit maa ngi lay ñaan yow mi dem Makka surtout fi ñu gën a gaaw a sàccee xaalis yi toilettes yi muy duus yi bokkaate la nga ne yaa ngay dugg ca biir soxlawoo sa bopp rek tekki sa kabra aj ko ca kaw wala nga aj tekki sa sa sa armal teg ko ca nga fàtte ko rek génn ka cay duggaat rek jël xaalis ba loolu ñu bari ñàkk nañ ci moo tax daal takkal sa xaalis bu dëgër a dëgër bul teqali koog moom mukk benn jamono bul teqali koog moom waaye boo tekkee teg ko ci toilette bi rek bu keneen duggee rek sàcc xaalis ba nga ñàkk ko am na fi ñoo xam ne tey ni nit ñi daggee billet di aji ne la amee ñuy dagg billet pour sàcc ji fu ñuy defee lu baax ñuy def lu bon ña ngi ca pegg ba kon nga bàyyi leen xel bu baax boo dugg ci toilette bi takkal mu dëgër sa valise boobu nga dugal sa néeg koo mën a bokkaa technique yaa xam jëlal sa xomb nga tëj ko jël xomb booba jël caabi ya boole ko ci fi ngay denc sa xaalis boo tijjee rek tëjaat dencaat sa bagage yi nekk lu dëgër a dëgër foo denc ko denc bu baax a baax a baax a baax soo demee ba jënd sérité yi tamit noona ngay dañ nga nga jënd li lu xem rek lu ñuy jaay fii yëpp mu ngi fi sérité màkka doy na maanaam benn benn benn kurus koo ko jox wala nga jox ko tàndarma wala nga jox ko tàndarma mbaa nga jox ko sam benn bi boo ko ci jox doy na loo waxati rek ña benn rek ka fa dëkk laa la bëgg a wax sax mooy sam-sam kese loo waxati dañ ko faa yóbbu waaye dëkkut fa tàndarma ñaata réew lañ koy bayee du jeex euh, buy kurus ñaata lañ ci am Sénégal yi kurus yi xam dafa am màkka su ko defee kon nag jëratul ngay jënd kurus yu dul jeex aka ku ne ma ko bëgg a jëndal koppati kii dama ko bëgg a jëndal maanaam kaala kii dama ko jëndal nangam sa bolis bi dana fees ba ñu mayee ba mu paase la ëpp loola demal nga jënd sam-sam rek def ko ci paan Euh, boo ñëwee fii rek def ndox tuuti paanam ndox sotti ci sam ñëpp naan barkeelu ndax loola yonentu nee na samsam li ma suri ba la waaye soo bëggee ku la joxa ñaar téeméer nga ndil ko mbaxana ku la joxab junne nga ko kaala kurus su ko defee yooyu tamit baaxul te ñu ci bëri dañuy def loola wala tam nun tastakthir joxe lii ngir bëgg ñu jox la lu gën a bëri yàlla tere woon na ko yonantu bi mu nekk def ko muy lu xaraam ci moom mu tere ñu ko ñun ñi tamit ñu war koo teet war koo moytu ku la tàggu màkk loo koy jox na yàlla tax kese mu mu sànkal la ko ca la muy def nga xam ca yool te yaa ngi toog fii waaye bul séentu lu la war a defal yow tamit bu ñu la jox tamit nga bindab liste fu nekk nga ñëw def nga ne yu dul jeex génnee sa xaalis boo moytuwul sa nga ne nga ñëw gën di nettali di tiitaru ba sa xaj ga yàqu loola dara jaru ko kon na nga simple la lépp bàyyeekoo fii tusubaar jot nga waaxu jëm ca jàkka ja la ngay defi moo ëpp doole fuuf nga takk maa ngi jëm avion dem màkka kon dem jàkka ja xam na ñëw di nettali dem màkka dem jàkka ja xamul nettali kon nag jooxe julli moo gën a foor jooxe ji xaj ba imaamu Malik ne boo naree xaji sax waxtu julli faat la ca yoon wa xaj wàcc na la Malik sax loolu la gëm su ko defee kon nag euh, nañ delloo xel yi bu baax a baax a baax fogoru bu baax a baax a baax a baax di gën a nag bàyyi xel sàcc yi bu baax a baax a baax a baax fexe yóbbalu ci jikko yóbbalu ci xam-xam yóbbalu ci kartan yóbbalu tabaarakalaaw tamit ci comportement yu bëree bëri yi kon niñ comporté woo fii fu Sénégalais dem foo dem xeeb leen moo tax waa ji ne moom ah aljana kay moom euh, boo fa demee bu nga bëgg a laaj fi Sénégal yéen seetal fa coow la gën a bëri rek ku ba gën a bëri coow rek jërul laajte fa la maanaam maanaam fa la Sénégal yee de ma man nag ma ma jàngatee ci ne man de damay ragal euh, Sénégal yi niñ bëggee euh, wax ju bëri ak niñ bëggee coow damay ragal ëllëg yàlla dugal ñu aljana bañ dugg ba pare ñu nekk fa di coowa a coow coow ba yàlla ne. ñooñ di coow ñi ngi déranger waa aljana yi génnee leen leen ndax comme moo waxoon laa yasmauna fiha laxwan wala kizaban damay bañ ñaar yooyu ñu def ko faa defa def ba yàlla ne nañu far génne te boo kon ñaam problème kon nag euh, comportement yu bëri fii boo ko melokaanoo rek boo demee ci yeneen réew wala ci yeneen xeeti aw nit da nga xeeb sa bopp yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel yàlla na yàlla dimbale leen te dimbale ñu taxawu leen taxawuñu barkeel leen barkeel ñu lépp luñ leen yéene ci seen liggéeyam aj gu màgg gii yéene ko suñ bopp yàlla nañu ko yàlla defal te defal leen ko yéen ñëpp tamit yàlla bu leen réer yàlla bu leen réerle seeni farata yi leen tax a jug yàlla na mat mat ku kawe seen njortu lépp na ko yàlla bëggee ngeen defee ko ko ba ñépp ñu ca dem am xajjan mabruur gi nga xam ne laysa lahu saa ilal janna wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.